asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk Sénégal maa ngi leen bu baax di leen jaare euh, man la Serigne Lamine Bara tey jii nag boo gisee vidéo bi may wax ci wàllu làmb rawatina ci komba bii ñu dëgmal muy combat Balla Gaye ak Modou Lo euh, bu ñuy def suñuy ñaan ci semaine bii di ñaanal àddina di ñaanal Sénégal di def suñuy ñaan dafa am luñ ci gis li nga xamante ni sax man bëriwul li may wax ci làmb du ma ne sax mosuma ci wax waaye bëriwul li ma ko def li tax nag tey jii ñu am pour di ci wax ndax dañu bokk ci réew mi doon ay sénégalais comme ñëpp waaye combat Modou Lo ak Balla Gaye muy def fa nekk ñaari mbër yi nga xamante ni ñoo ëpp gàllaaj ñoo ëpp mystique ci làmb ci loolu moom wala bokk nañ ci ñu ëpp gàllaaj am ñi ëpp mystique ci làmb ji ñoom ñaar nag dafa am ku ma ci yërëm ki ma ci yërëm nag mooy ki xamante ne dañ ko daan te daan dañ ko daan it daan mystique la donte nag li ma ci gis mooy révélation bi mooy daan daan nit ki ba pare yàq ko mu daanu jël coup jël kaawo daal dee sañ koom daal dee paralysé ba dootul wala lambam dana yàqu wala yu ni mel ba carrière am ci wàllu bër yaakaar naa foofu lay dem kon yaakaar naa li ma wax leer ki ñu daal dañ ko mystique dañ ko marabouté dañ ko envoûté dañ ko ensorcelé dañ ko jekku surtout jamono ji à la veille des combats li ma ci gis mooy révélation bi nee naa mooy àjjuma ji benn ci mbër bi nga xamante ni dafa daan dafa war a daan yàlla dogal na moo moo war a daan ak ay mbokkam jekku nañ ki ci des jekku bi ñu ko jekku nag dañ ko yóbbu ci ay sëriñ def ko ay liggéey yu garaaw a garaaw a garaaw yu dangereux liggéey yooyu nag dañu jël gëléem buy dund ñu jël ko suul ko enterré ko ci benn cimetière enterré ko ci benn armée kon nag ñuy alerté autorités yi nga xamante ni ñoo yor kaaraange ci suñuy armée ak ci suñuy cimetière ndaxte dañu jëm ci deux mille dix neuf te ku wax deux mille dix neuf yu dangereux nar na fi am ñun nag ay sëriñ lañu ay nitu diine lañu yu dangereux yooyu ñu nar a def ci suñuy armeel nañu ñaan ñu war a maako ndax ñun ci suñuy seet gis nañu gëléem nee naa leen buy dund ñu jël ko ñu suul ko ci benn armeel ci suñuy armeel yépp ci territoire national suñu baatin nag ak xam-xam moo ñu ko may ñuy seet ba mën a gis li nga xamante ne loolu lañ ci gis liñ ci jublu nag nee naa leen pour mbër boobu kaw paralysé dootul jóg wala dootul dundati ci àddina mu dof wala mu dee wala mu yàqu wala mu futi ba kenn du ko bëgg wala kenn du ko jëlee te loolu nag wax dëgg yàlla war naa mën a ñàkk non seulement armeel boobu bu mu am waaye ñun ak nit diine ñu naan ñu ñaan ci am nañ ci pexe am nañ ci solution am nañu ay ñaan ak ay pexe yi nga xamante ni mu ko ci defee non seulement jàmm dana ci am non seulement ko ki ñu daane buñ ko daanee ba pare dana mën a continuer luttam dina mën a continuer combat am dina mën a continuer dundam waaye daan nit ki ba pare ne nit ki na dee loolu rek laa te d'accord parce que loolu musul am ci làmb te mi ngi fi am te nee naa leen ajjuma ju bu mujj juste avant combat bi deux à trois jours avant combat bi ajjuma jooju ci lañu gis ne ñooñu fay nañu sëriñ yi ko war a def ba pare pour mu dee wala mu dof wala mu yàqu wala mu futti te loolu nag wax dëgg yàlla ci laa taxaw mënoon naa jóg nag dem seeti Modou Lo mii dana ma recevoir parce que ñàkkul xam na ma xam naa ko mënoon naa jóg it dem seeti Balla Gaye nii ñàkkul moom it xam na ma xam naa ko te mën nañu am relation bu ëpp boobu ma dem wax ko kon nag li may wax mooy pour ñu defar ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem am nañ ci pexe li ñaaw li nar a am ci loolu lu musul am ci làmb ni dee ci biir làmb wala ni paralysé ci làmb yéene doomu adama la nit ku nekk bu doon li la yéene mu dal la kon nit ku nekk war nga jooy ndax say noon te noonu jarul xel loolu moo tax nag man sëriñ Lamine Bara Fall ma jël sama responsabilité bii def déclaration bii di xamal ñaari mbir yii li ci nar am xam naa nag kii daal xam naa kii daal te mënoon naa ko wax ndax am na ñu ko fi def di ko wax waaye xëy na su ma ko defee am na ñu muy arrangé waaye am na ñu muy dérangé te bëgguma dérangé li ma ci jublu daal mooy ñu am pexe. lu ñaaw li nar a am ci biir làmb wax dëgg yàlla ñu nekk waaye ko ba loolu sax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Touba jaral na ko maam Cheikh Ibrahima